wanfaanaa bimaa allamtanaa wa zidnaa ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaanaa bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushur allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhaanallahi bukratan wa akbar allahu akbar laa ilaha illa allah mbokk yi lii mooy wali tukabiru llaha ala hadaakum ngir ngen tudd yàlla ci la nga xamante ne mooy la leen yàlla orienté li an yaj'alana min ummati muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, mu orienté ñu ci mbaaxam ci ñu nekk xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ba léegi ñu ngi nekk ak yéen ci waxtaanu tabaski ñu gis ne lii mooy keroog bu ñu yàlla mayee ba ñu àgg ci la xamante ne moo nekk euh, idul adhal mubaarak yowmu nahar su ko defee ñu ngi yemoon ak yéen ci waxtaan ba aju si taxawaayu yowmu arafa wala la nga xamante ne mooy woor yowmu arafa wooru yowmu arafa nag loolu waxtaanoon nañu ak yéen ci loole tey ñu war a ànd ak yéen ci taxawaayu arafa taxawaayu arafa nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lim ci joxoñ te yàlla suñu borom tabaraka wa mu di ko ndamoo ci malaaka yi yàlla suñu borom tabaraka wa di won malaaka yi ne kaay leen xool sama jaam yi tey ni ñu mel ba tax na amul dara lañ nit war a mën a def yowmul arafa lu dul ñaan ñaanu yowmu arafa nag tey moom lañ leen bëgg a dégtal bi iznillahi subhaanahu wa taala mbokk yi xam ngeen ne ñaan yàlla da ñaan da mbir woo xamante ne borom bi tabaaraka wa moo ko sant doomu aadama mu ne ko ñaan ma ma may la woo ma ma wuyu la sàkkul njéggal ma jéggal la na dimbale ko ci man ma xettali la ci lépp li nga nekke moo tax du'a yawmu arafa ñaanu bisu arafa lañ leen bëgg a dégtal yow mi dem màkk yaa nga fa di ñaan yan yàlla def aj ba nga nekkee foofu mu nekk xajjul mabrur wa chaayun mashkur wa dambun makfur alladi laysa lahu aljaza ila aljanna yan na ko yàlla def noonu amin ya rabbal alamin aj ba nga nekkee foofu yan na ko yalla def aj bu nangu yan na ko yalla def dem dikk bu mu nangu bu ma accepté waaye yal na ko yàlla def yëngatu yang fay yëngatu ak jëflante yang fay jëflante mu doon jéggal akoor ba tukkee fa borom bi ñëw ci yow ujaaj bi amin ya rabbal alamin kon yow mu demul nag nang ñu topp ci réew Rewmi FM 97.5 ñu ànd ak yow géema taataan ñaan bi nga xamante ne mooy ñaanu yow mu arafa duaa u yow mu arafa ñaan ba ñuy waaj a yëkkati si nii mooy ñaanu bésu arafa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xayru du'aa'i du'aa'i yowmu arafa wa xayru maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaha illa allah waxdahu laa sharika lah lahu lmulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir ñaanu bésu arafa yonent bi sallallahu alayhi wa xayru du'aa'i du'aa'u yowmu arafa xayru du'aa'i du'aa'u yowma bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ba gën mooy ñaanu bésu arafa ñaan ba gën ci ñaan ñi ban ñaan moo gën a màgg ci ñaan ñi ban ñaan la yàlla sopp ci ñaan ñi bépp baat ba doomu aadama di yëkkati di wax ci gémmiñam yonent bi nee na ñaanu bésu arafa moo jël raw gàddu gi moo féete ci kaw mooy njomboxtal ba ñaan boobu mooy lan képp ku ko bëgg xam mais ñu nopp ci waxtaanu fajar bii di jaar fii ci réew mi fm 97.5 yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee xayru duaa ñaan ba gën ci ñaan ñi mooy duaa u yowmu arafa mooy ñaanu bisu arafa sallallahu alayhi wa mu daal di ñu xamal mu ne ñu wa xayru ma qultu ana wannabiyuna min qabli bépp ñaan ba nit ki di wax tàmbalee ko ci man mi ba yonent ya ma jiitu woon amul benn ñaan bañ na ñaan ba ñaan bi may waaj a yëkkati moo ne ñaan bi mooy wan ñaan mooy dangay wax ne laa ilaha illa waxdahu laa sharika lah amul benn buur bi ñu war a jaamu ci dégg ku dut yàlla moom kottu rekk amul benn dendandoor amul lenn luñ ko war a bokkaale ci ñaan boobu wala ci jaamu jooju ñi di ko jaamu subhaanahu wa taala waaw da wax ne laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg kudut yàlla wahdahu moom ket moom kot rekk dong laa sharika lahu amul dara lañ kay bokkaale lahul mulk mboolem xeetu nguur yu mag yi mboolem xeetu nguur ya nekk ci kaw mboolem xeetu nguur ya nekk ci suuf mboolem xeetu nguur ya ñu xamul moom yàlla moo koy joxe ndax ca moom lañu nekk subhaanahu wa taala walahul hamdu mboolem xeetu cant yu kawe mboolem xeetu cant yu matale yi mboolem xeetu cant yu taaru yi moom dong la ñeel subhaanahu wa taala moo tax nga ne ko walahul walahul hamdu moom dong cant yu kawe yi moom dong la ñeel keneen ku moom dañ la koy naxee rek waaye cant yu kawe yi cant yu matale yi yàlla dong moo ko moom moom dong moo ko yeyoo wa huwa ndax moom yàlla ala kulli shay'in ci bépp mbir ba ñu xam ba ñu xamut la gis la gisut la ñu yëg la ñu yëgul xadir ku ci am kàttan la yàlla ku am kàttan la ci bépp mbir ba ñu xam ba ñu xamut yàlla am kàttan ci loolee lañu ñu lañu ak la gisut yàlla am kàttan ci loole lañu ñu yëg lu ñu yëgul yàlla moo am kàttan ci loole di bàkk yàlla ci anam wi di ko ñaan ci anam wi di tudd di ko delloo màggaayam ak kattanam ak sañ ci anam bi di ko delloo cantaakoo yu matale yi wane ko yow dong yaa ko am yow dong yaa ko yeyoo keneen ko yow amu ko matewu ko ndax du moom lii lañuy ñuy bàkkee yàlla bésu yow mu arafa laa ilaha illa waxdahu laa sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir su ko defee yeneen ñaan yow si teg nga daal di ko si teg mais lii la yonent bi sunnaal sallallahu alayhi wa sallam ci ñaan ba gën ci yow mu arafa kon yow mi demul màkka yow mi demul ajj màkka kon nañ leen bokk géema mokkal ñaan bi ñaan bi mooy lan laa ilaha illa allah waxdahu laa sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir moo ñaan mi la muy tekki mooy amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla moom ndong amul benn ndendandoor amul lenn lañ koy bokkaale laxul mulk mboolem xeetu nguur yu mag yi ñeel nañ ko yàlla moom dong moo yore nguur yu mag bi mboolem xeetu nguuru asamaan ñeel na ko moom yàlla mboolem xeetu nguuru suuf ak lañu gis ak lañu gisul xeetu nguur yu mag yi yàlla dong moo ko moom walaxul xamdu cant yu matale yi moom dong moo ko yeeyo wa huwa ndax moom yàlla ala kulli shay'in ci bépp mbir qadir ku ci am kattan la yàlla dafa bëgg toujours doomu aadama bi di ko delloo la mu moom di ko delloo jëmmam bi nu mu toll donte matale wuñu ko xamuñu ko sax mënuñu koo def waaye na ko yonentu bi junjee na ko yonentu bi joxoñal su ko defee ñu defee ko noonu si suñu kemtalaay kàttan leneen luñ ci tëlee borom bi tabaraka wa taala du ñàkk mu ñu la nga xamante ne mooy la ci des ci suñu kémtalay kattan lu ñu ñàkk matale moo tax yàlla suñu borom mu andil ñu dëxalante ba mu dëxalante ñun doomu aadama yi ci jaamu ko ci ñaan ko da koy def xanaa du ñun ñoo du xam nu mu koy defee waaye yàlla lu mu dëxalante ñun fekk def nañ ci suñu kéemtalaay kàttan yàlla suñu borom lu mu warloog ñun dina ko matal ba mat sëkk ba tax na bis ni ki tey nañ leen baril di ñaan yàlla ndax yàlla moo ñu ko dikk su ko defee bindkat bi daal di ñu bindal mu ne ñu al wuudul uluhiyatil arba dëxalante ba yàlla dëxalante doomu aadama fasante ko na ci téere bi palaas yu bari ay bërëb yu fasante ko la yàlla dexalanteeg doomu aadama waaye borom téere bi daf ñu andil ñeenti bërëb kat coin lañu ñu téere bi andil mu ne ñu premier coin bi ruq bu njëkk bi mooy yàlla suñu borom daf ne ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen kon yàlla lu mu yore du xaaj du jeex te doyewu ko dara te soxlawu ko te loolu ñun jaamu yàlla yi la ko waajalal wane ne la fa moom du xaaj du jeex moo tax mu ne uduuni tàllal leen seeni loxo ñaan ma astajibu lakum ma mee keneen ku dul ti yàlla bu waxee lii dañ koy weddi ndax ñépp mënuñu koo ñaan waaw ñëpp mënuñu koo ñaan am na ñoo xamante ne duñu xam ne sax daf ne ñaan leen ma ma mee ndax làkk bu mu koy wax làkk boobu ñum ko bokkal dégg ñooñu ñooy xam la mu wax waaye yàlla lii mu wax nii ñépp ko bokk xam ñëpp ko bokk jëfandikoo ba tax na moo tax nga gis xataa ku jullit sax jaamukatu xërëm bi xërëm bi la jaarale digganteem ak yàlla ngir xërëm bi jottalil ko la muy ñaan ca yàlla moom gis-gisam ak xam-xamam ak dégg-déggam fa la toll moo tax mu yett xërëm bu naan ñum ci kanamam mu def loolu waasita escalier ba koy jokkale digganteem ak boromam mais kooku xam na ne yàlla dañ koy ñaan waaye xaaral ma jaarale ko ci xërëm bi or ko loolu warut mën a ne yàlla digganteem ak doomu aadama da ko ubbil porte da ko ubbil buntu waaw moo tax fii boo dégloo aaya bi sax yàlla daf ne uduuni ñaan leen ma waxu leen ñaan leen yonente wala ñaan leen malaaka mu jottalil ma seeni ñaan bu fekkee ne noonu la ni kon noonu la koy daan waxee bu fekkee ne noonu lay demee noonu la koy waxee ci téere bi waaw ndax yàlla du neexal kenn ci leen waaw waaye daf ne uduuni ñaan leen ma ñaan leen ma léegi yonent bi moo ñuy won nu ñuy ñaanee yàlla day lekk lu lew del sol lu lew del sol lu baax del sol lu dagan te nga bàyyi yëfu jàmbur nga bàyyi si deru jàmbur su ko defee nga laabal la ngay lekk nga laabal la ngay naan nga laabalal sa xol su ko defee yonent bi orientation boobu la ñuy orienté kantaa ñaan loolu yàlla lañ koy def moo tax aaya bi ne ud'uuni ñaan leen ma astajibu lakum ma may leen te fukki fan yu njëkk yi comme bés ni ki tey dafa bokk ci bésu ñaan dafa bokk ci bésu nangu ñaan waaw ñaari occasion ñoo daje ci fan yu fan yu njëkk yi ci weeru zilhijja weeru tubuski bi ñu nekk nii dafa am ñaari occasion ya daje mooy lan waxtu yi moment ñaan yàlla la waaye moment nangu ñaan la tamit moo tax nga dégg ne ud'uuni astajib lakum yàlla ne ñaan leen ma ma mee waaw ñaareelu ruq mooy ñaareelu coin bi deuxième partie bi yàlla suñu borom daf ne fadkuruni askurukum na nangeen ma fàttali na ngeen ma fàttaliku ci sama néeg yi na ngeen dem ci jàkka yi di ma ci nemmeeku ma di am ak yéen ojaan ci sama néeg sama kër sama bërëb ba nekk ci kaw suuf si di jàkk yi dee leen ko fréquenter noo leen ko fréquenter doyul ndax fa ngeen may fekk ca sama béréb yooyu su ko defee ngeen di ma fàttaliku ci béréb yooyu may am ak yéen audience si foofee man it ma di leen nemmeeku man it ma di leen fàttaliku ci béréb yu gën a sell ca fa ngeen may fàttalikoo na ngeen ma tudd ci béréb yu sell yi lu mel ni sama béréb ya nekk ci kaw suuf te béréb bu yàlla ci kaw suuf naam moom moom béréb bi yëpp waaye nag ah dafa am fu ñu ko jagleel mooy fan ci jàkka yi su ko defee ñu déggee ko noonu moo tax mu ne fadkuruni na ngeen ma fàttale ko ci sama néeg yi sama jàkka yi adkurukum ma nit ma di leen fàttale ko walla ma di leen tudd fa gën fu ngeen may fàttale ko su ko defee yàlla daf ñu dikk def leen lii ma defal leen lii bu njëkk ba mu ne ñaan leen ma mamee leen dig boobu remplilu na yàlla remplilu na matal na dexalante ba mu dexalante ñun ci njëlbeenu pàcc bi mooy ñaan leen ma mamee leen waaw ñaareelu dexalante bi ba mu dexalante doomu aadama yi mooy daf ne fàttaliku leen ma samay néeg man nit ma ko leen de leen fréquenté jàkka yi man nit ma di leen bindal not malaaka yi di seede ne yéen a ngi fréquenté jàkka yi massivement waaw ah, kañ waaw ah, na ngeen ma tudd ma tudd leen na ngeen ma fàttaliku ma fàttaliku leen su ko defee ñetteelu point bi ñetteelu point bi mooy yàlla daf ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen ma sante ci xewal ba ma leen defal ma dolli leen la gaay di wax ku dolli cere yokk ñeex waaw ku dolli cere yokku ñeex yàlla ne bu ngeen sante xéwal yama leen xéwalal tànk yama leen defaral ngeen di si dox jàmm ngeen di si dox di jëm ci jàkk yi ak li ni mel su ko defee manit ma yokku leen wérgu yaram bépp xéwal ba ma defal doomu aadama boo ma ci santee ma yokku yow mbokk tëbaskaa ngi nii tëbaski baa ngi nii ñu ngi ci ngalla nanga na dimbale mbokk bu jege bi na nga dimbale miskin bi na nga dimbale faqiir bi na nga dimbale ñuy taxawee diini bi na nga dimbale koo tane loolu nga koy dimbale di wàññi dara ci sa alal ba nga koy dimbale au yàlla da koy barkeel mu jébbil ko mu daal di jébbi alal ba daal di meññ doo xam barke bi fu mu jógee moo tax yàlla ne la in shakartum bu ngeen ma sante la in shakartum bu ngeen ma delloo njukkal ba la in shakartum bu ngeen reconnaître xéewal ba ma leen defal ah la azidannakum dinaa ko yokk waaw waaw sant yàlla ci xéewal bi mu la defal mu yokk la xéewal bi di saawan baawaan kon doo am loolu fenn doo ko am ci dara loolu nga reconnaître xéewal ba la yàlla defal dimbalil koo tane jokkul mbokk dimbalil ñiy taxawee diini dimbalil jirim dimbalil faqiir ila axirihi yàlla gis ne yow lam la jox ci xéwal yaa ngi ko koy sant waaye yaa ngi koy orienté si ñi nga tane yàlla nee na dinaa la yokk dinaa la may te dina la barkelal waaw loolu tamit beneen déxalante la bu yàlla déxalante képp ku teg tànkam ci ndigle yàlla sore lépp lu mu tere ñetteel bi yàlla buur bi tabaraka wa taala nee na wa maa kaana allahu muazibahum wa hum yastaghfiruun déeti yàlla muy mbugal sey xeeti yow sayidina muhammad fekk ñu ngi làmboo istixfaar fekk ñoo ngi jéggalu fa seen borom yàlla suñu borom tabaraka wa taala nee na leen mbugal te duma leen toroxal moo tax mu ne ko wa maa kaana allahu muazibahum wa hum yastaxfiruun waaw déet yàlla mu di leen mbugal feek ñu ngi làmboog istixfaar waaw fekk ñu ngi tudd istixfaar ñu ngi wax ñu ngi ne astaxfirullah ñu ngi jéggalu fa yàlla ñu ngi jéggalu fa yàlla loolu yàlla suñu borom tabaraka wa taala nee na fekk say xeet ñu ngi dëkk di jéggalu sama mbugal du musa ñëw ci ñoom subhaanahu wa taala yal nañu ko yàlla fayal sallallahu alayhi wa sallam doon xëytu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam njëriñ dong la du pertange ba tax na lay waral lay diggal euh, la nga xamante ne mooy ñaan yi mooy xadiisu nu'man bin bashir radiallahu anhu nee na naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaal adduaau huwa alibada thumma qaraa wa qaala rabbukum uduuni astajib lakum inna alladina yastakbiruuna an cibaadati sayadxuluuna jahannama daaxirin xadisun saxix axrajahu albani fi saxix jaamiu tirmisi mbokk yi nucmaan bun basir radiallahu anhu nee na saxaabi bu mag di nucmaan bun bashir daf ne naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ne ñu addu'aa ñaan yàlla huwa al ibaada loolu tiggi tiggi tiggi mooy jaamu yàlla ñaan yàlla nee na loolu rek mooy jaamu yàlla nga bëgg jaamu yàlla talal sa loxo di ñaan yàlla waaw kañ nee na après topp si yonent bi daal jàng moo tax mu ne summa topp si qaraa yonent bi daal di jàng wa qaala rabbukum seen borom daf ne uduuni ñaan leen ma astajib lakum ma may leen uduuni woo ma astajib ma wuyu leen uduuni na ngeen ma diis seeni soxla astajib lakum ma fajal leen ko inna alladina yàlla nee na gaayaa ngi ne ñoo xamante ne yastakbiruuna an ibadati dañuy ngéem a rëy rëylu rëyaleen jàpp ba duñ ma faale duñ ma jaamu duñ ma ñaan yàlla nee na ñooñu de ah keroog bés pénc sa yadxuluuna jahannama dinaa leen tabbil safara su jahannama daaxiriin ci suufa suufa suuf fu gën suufee ci safara su jahannama yàlla ne képp kuy rëy rëylu di nganda ngandalu doo jaamu yàlla doo talal sa loxo di wax yàlla may ma doo di sa soxla yàlla yow ñaan yàlla daal danga jàpp ni ñu doyadi yi ñoo koy def ñaan yàlla daal man ëpp naa sama bopp di ñaan yàlla quoi man ëppali naa sama bopp di taxaw ci gaay yi ci sa yi ci rangaay di ñaan yàlla rëy rëylu doo ñaan yàlla dara doo ñaan yàlla si lenn yàlla nee na toqantalu rëyi ñaan yàlla si xolu ko mu nekk bés pénc buy dema di ko dugal ci biir safara su jaxannam ci suuf kon ndekete ñàkk ñaan yàlla mun naa yóbbee nit ki nga tàbbi ci mbugalu yàlla waaw waaw ah ah kañ yàllaa ko wax yàlla nee na wa qaala rabbukum yonentu bi waxal sama jaami seen boroom ne uduuni na ngeen ka ñaan astajibu lakum mu mee leen uduuni na ngeen ko woo astajibu lakum mu wuyu leen uduuni na ngeen ko di seeni soxla astajibu lakum mu fajal leen seen soxla yi uduuni na ngeen ñaan yàlla ci lépp astajibu ko mu wuyu leen nag yàlla moo ngi nii di tëkku ñoo xamante ne inna alladina gaa yi nga xamante ne wu yastakbiruuna an ibadati dañuy nganda ngandaloo rëyaleen topp seen xol ba duñu tàllal loxo yàlla ñaan ko ci dara yàlla nee na ñooñu de sa yadxuluuna jahannama daaxirin ñëwuñu ci biir safara su jahannama laa leen di tàbbil wala iyaasu billah li lañ koy yóbbee mooy ñàkk tàllal loxo yàlla di ko ñaan ndegem ñàkk tàllal loxo yàlla di ko ñaan mën naa yóbbee nit ci mbugalu tàbbum safara su jaxannama fu gën a suufe kon ah nañ leen bokk di tàllal loxo yàlla di ko ñaan moo tax noonu la ñuy duggee di ko ñaan yàlla di ko ne allahumma rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina adaaba annaar allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samian alim wa natubu ilayka ya rabbana innaka anta tawaabu rahim allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbaru kabira walhamdulillahi kacira wa subhaanallahi bukratan wa asila allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yem si fu ñu war a jotaay bi nar a jëbbal bërëb bi ñuy joxe xibaar ci nasaraan ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yataqabala minna wa minkum saalihu amalana allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih aimmatana wa wulata umurina allahuma ya rabbi ixfad bilaadana min alfitan maa dahara minha wa maa batan allahuma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rachada allahuma rabbana faxfir lana wa liwalidina walmuminina walmuminat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت فاصلح لنا شأننا كله laa hawla wala quwata illa billah al aliyyil azim wa salli llahumma wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslim baraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani al azim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikri al hakim aqulu ma tasma'un wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu